Alima Diop seen gaam Opalia seen cuuraay raktak bi rey yooyu ak amateur enquête sa vox populi tribune las ak témoigné ñoom ñëpp ñu xëytaay yéenekaay bi nee nañu moo ne woon juróomeelu xalifa général des ci altine ji ca la nelaw ñu denc ko ay maanaam 21 heures ca wetu way juróom wu tedd wa di Seydina Issa Rohou Laye Baye Ablaye Thiaw Laye la toogoon ci jal bi woon juróom di 95 ans beneen nitu yàlla gi nelaw démb di Serigne Abdourahim Seck l'observateur mi ngi ñuy xamal moo ne woon juróom-ñetteelu xalifa général bu Ceneba at ñaari weer la toog ci xilaafa gi ca Maroc fa la ab liggéey addunaam yëpp nag mi ngi ko jagleloon yàlla sunu borom yonente bi alxuraanul karim julli ak mbay ak ñaar maanaam 82 ans gone yi 2 ans yi ba lu ko jege la sinekaay nee nañu troisième vague bi ci coronavirus bi ak variant delta bi sonal na leen lool wàññi nañu fukki xale ak juróom yu wopp ji sonal ba ñu nekk ci état bu garaaw wàññi na ñit ñeenti gone yu wopp ji faat ca ñoom am na ci benn parental bu juróom-ñetti weer lise ko xamal ñu ne ci Albert Royer ca la xewe ñeenti xale yu covid bokk ci ñoom benn liir bu toll ci juróom-ñetti quotidien xëy di ñuy xibaar ne ñàkk ñuy ñàkk nit ñi ngir leen ci wopp ji di vaccin anti covid jigéen ñi wéru li léegi bokk nañu ci yaatal nañu ko ba mu yegg ci ñoom léegi femme enceinte yi it mën nañoo vacciné wu association gi ëmb gynécologue ak obstétricien yi ci réew mi di xamle ci biir yéenekaay bii di le quotidien ne xeeti vaccin anti covid 19 yi jigéen ñu wérul yi ak jigéen ñiy nàmpal mën nañoo jël xeeti vaccin yépp waaye nag bu dee jigéen ñu wérul yi ñoom lu ñu ko mën a moytu ci seen ñetti wéeru njëkk yi moo gën fegu moo gën faju soleil national mel na ko naan moo taxit pharmacie yi ci réew mi mbiru yombul ci ñoom guddi yu ñu toll sibiru bi ak grippe bi ñëw fekk fi coronavirus bi fi newoon nit ñi yittewoo yenn garab yi tax na am na benn pharmacien bu leen wax ñoom waa Soleil national ne yenn médicaments yi tàmbali nañoo ñàkk di rupture ci pharmacie yi li ci suur suwaa kenn xamul noo koy tudde mu njëkk journal bi ci examen BFEM yi ñu tàmbali démb ci réew mi ci la ñu gis lu doy waar ca département bu Louga ak ca Linguère ñetti téeméeri candidat ak fanweer yu waroon a examen BFEM te kenn gisu leen démb ca centre d'examen ya yéen a kaay bi nañu ñaari téeméeri candidat ak juróom benn fukki ca département bu Louga la juróom-ñaar fukki candidat ya ca des ca Linguère la làmbu ji laa jëm ak sunu làmbu mi xëy ci ndeem si yàlla Mbaye Guèye Tigre de Fass ba woon yéenekaay bi wax ñu lu bari ci lu ñu bari umpale woon ci moom mbay Guèye moo ko wax waa sunu làmbu ci ak dundam nee na leen bëri na ci carrière am juróom-ñaar fukki combat jàpp juróom-ñett fukk am na sax ñu daan wax naan moom mbay Guèye jinne la mu ne it moo gënoon a siiw ñoom Siteu ñoom Modou Lo ak ñoom Balla Gaye 2 yi ñuy tudd tey xamal na leen ni Serigne fàllu Mbacké moo ko ne woon danga doon boroomu tur ci réew mi mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen doon may ak gi fukk ak juróom-ñett ci fan ci weeru ut wi lay doon weer wi euh, seen nanu ko démb ci gox yu bari ci Sénégal ginnaaw ceenu gi ak kuréel ginu ko dénk université Alioune Diop bu Bombay ñoom la ñu bëgg mooy euh, lëmbee ga fa tukkee ci étudiants yi dakk euh, ak léegi grève ak ñàkkum kaaraange waral kilifa yi daara ju kawe joojee fare foofe ca Bombay ajandi njàng ma ba fileeg ñeenti fan ci weeru octobre mbooloom amical ya fa it tas nañu ko wàllu wér-gu-yaram ak coronavirus lu ëpp téeméeri sage-femme ci Sénégal amee jàngoro ji waral njiit ak mbootaay yooyu soxna di sage-femme soxna Bigué Bambodj di sàkku ci kilifa yi Sénégal yokkal leen matuwaay ngir kaaraange gi ci technique bi Abdoulaye gün. jërë ngeen jëf ci ànd beeg ñun RFM ñu ngi Médina rue 15 angle corniche immeuble El Hadj Eli Mandour ñu tàmbalee xibaar yi ak wu tiis dab Sénégal umma islam bi yëpp ak làquk ku tedd ki di Serigne Abdoulaye Thiaw Laye xalif général des Layènes euh, demb la dal di kon wàccëb liggéey ci juróom-ñeent fukkeel ak juróom ci at ñu denc ko ca jàmmalaay ci weti baay ju tedd ja Seydina Issa Ruhu Laye ngir gën a xamee kilifa gi fi bawoo ñu ànd ak amadu Sabax Ba. aw daxtoo xalbaa dénk naa nekkoon juróomi xalif bu Baay Laay ginnaaw génnuk àdduna Seydina Maam Alassane Thiaw Laay ci atum 2001 mi ngi gane àdduna ci ñaar fukki fan ak juróom benn weerub octobre atum 1926 Baay Abdoulahi comme ni ko ñu bari daan faral di woowee yoroon na kàddu kër gi ci xalif généraux yu bëri yi nga xam ne ni ñoo jiite këruk Baay Laay gi ginnaaw génnuk àdduna Seydina Issa Ruuxu ginnaaw ak tàggat ci wetu way juróom bu góor moom moomee sax yóbbu ko mu jàngaat li nga xam ne ne mooy diine rawatina lii di science mystique ci daara yu bëri ci réew mi balaa moo dem ci armée way juróom bu góor boobu tabboon ko ci lu njëkk mu jiite wayu diine ci guddi gi ñuy màggal ga àdduna gën ci mbindeef yi yeneente bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Abdoulahi Thiaw Lahi génn àdduna ci altine juróom-ñeent ci weerum août atum 2021 ay atam tolloon ci juróom ak juróom ñu ngi ko denc ca jàmmalaay ci wetu way juróom bu góor Seydina Isa Ruuxullaahi jërëjëf amadu Sabax Ba ak làquk euh, sëriñ Abdoulahi Thiaw Laay umma islaam gi yëpp ñàkk euh, ku baax ku daa defar euh, mooy seedey doom ji Seydina Mandione Laay ñu teew lu ko xaas njógu jéen ji mu dal ci kawam fanaa ñëpp xaman Seydina Mandione dana metti lool ma wax ci moom ndax man dafa nekkoon sa sama modèle nekkoon sama lepp kat yi dana dóor ak diine bi ñu ngi Sénégal kon euh, ñu koy jaale moom it euh, na Mandione ak euh, mbooloom njabootug maam li maamul di yëpp ba tey ci xibaar yu tiis dab umma islam bi bu Sénégal rawatina ak làquk xalifa bu Thiénaba Serigne Abdourahim Seck juróom-ñett fukk juróom-ñetteelu xalifa maam Amary Ndack Seck moom ca Maroc la la daal di wuyo sunu borom ci xibaar rakk ja Serigne Assane Seck moo koy wuutu ci ci xilaafa gi leeral li Cheikh Anta Serigne Abdourahim Seck nekkoon xalif général bu cene ba dëddu génn àdduna ginnaaw bi ñu ko yóbboo fële ci Maroc doon ko fa faj Serigne Abdourahim Seck nag moom 2020 bi daanaka at ak ñaari weer la toog xalif général bu Thiénaba moom mi dëddu tey ji de ku amoon xam-xam la jàngoon alxuraan lool ginnaaw dëkk yu bëri yoo xamante ne jaar mi fi nekkoon xalif général bu Thiénaba moom it daanu buuf ci wetam di sàkku xam-xam mu doon ko jàngal moom nag ku amoon xam-xam la ku amoon gis-gis la di sëñ Abdourahim sekk ki nga xamante ni moom mooy sëtam di sëriñ Babacar sekk nee na ci àjjuma bi rek ñu génn bi ñu jullee ba pare def na ba xuboo bu am solo jëmale ko nag askan wi ci bennoo te moytu nag feebar bi nga xamante ne moom mooy coronavirus nee na nag nee na feebar bi lu am la mi ngi ci réew mi te mi ngi faat sëriñ Abdourahim sekk daara ju mag la yoroon ci dëkk bu ñuy wax cuuti nekk ci digganteem ak Cenaba toll na ci ñaari kilomètre ginnaaw bi mu nekkee xalif nag la ñëw fii ci ba dëkk boobu di cuuti nag maam Amari Ndaak Seck moom moo ko sancoon yoon xalif bi fi dëddu tey amoon na juróom-ñetti fukki at ak benn dem na tey jii bàyyi ci ginnaawam liggéey bu am solo boo xamante ne kii kan fas yéene wuutu di sëriñ Assane Seck di doom ci sëriñ Talla Seck góor gu mag moom moo ko fas yéene àggal ki nga xamante ne moom la ñu war a teg ci boppu xilaafa na 43 la juddu RFM Thiès Cheikh. Euh, moom kilifa gi sax euh, am na euh, message bu mu yëkkati di kàddu ñu déglu. mbokki jullit yépp ni Serigne Thiénaba Serigne Abdourahim Seck. macha allahu yàlla jëfandikoo na ci moom coobareem yàlla dogal na ni génn na àddina tey jii nii ñi ngi wax ñi ngi ñaan fu taaliba nekk fu jullit nekk mën ngaa toog déglu njaboot gi incha allahu ginnaaw yàlla dafa dogal ni ci biti la ko defee bu ñëwee rek danañ joxewaat information pour ku bëgg a ñëw rek teewee si incha allahu nga teew loolu mooy kàddu yi nga xam ñu ngi ko doon yëkkati ci ndigalal kilifa yi fu jullit nekk nga jàngal ko faatihatul kitaab fukki lixlaas yi ak benn wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam mu nekkoon mbokk yi li nga xamante ni mooy euh, xibaar yu tiis euh, dap euh, Sénégal uma islam bi yëpp làquk xalifa génégal ba sëriñ ab diine l'islam ci taas ñu ci seen barke. RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñeenti minutes. RFM askan wi. ñu fàttali ne ci kanam tuuti incha allah li ko dalee 10 heures RFM édition spéciale euh, ni ngeen ko xamee dina ànd ak Sénégal yëpp ci tiis wi dab ñaar ci as euh, njaga sekk naka noon it euh, bu lay doon ak téenug weer bi ci Sénégal. 9 août 2021 maanaam juróom-ñeenti fan ci weeru août bi ñu nekk mu tombeek jeexitu at mi ci weeru olof yi muy weeru mu xaram la ñuy dugg nii léegi nag bi ñu séentoo weer bi lamb ñi nga xam ne ñooy suñu ay correspondant wax cee kër diine jox leen xibaar yi ñu am déclaration bi ñu juboo ne ñun ñëpp mooy nekk te moom la ñu jàpp mooy talaata mooy nekk benn fan tombeek fukki fan ci weeru août bi tamxarit bi nag mu ngi tombeek àllarba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru ut bi ñu nekk ca ngoon la ñuy reer àllarba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru ut bi ñu nekk ca ngoon sa la ñuy reer alxames nekk feet bi tamit ñu nekk férié ci at mu bees mi ni muy 1443 ñu ci ñaan yàlla defal ñu ci jàmm ci suñu réew defal ñu ko ci suñuy njiit ak suñuy kilifa génneel ñu fi feebar bi ba ñu mucc ci yàlla ñu yàlla defal tamit atum naataanga ci nawet bi nga xam ne moom la ñuy séentu te dugg ci mu nekk nawet bu mu barkeel bu ñuy jariñ ñu ngi ndokkeel ñëpp ci at mu bees bi dina ñaanal jàmm ak salaam ak sutura ak barke amin euh, loole neb jàngoro coronavirus imam Oumar Diène junj ko ci kàddoom mu dab àddina dab Sénégal euh, ba tey ak i euh, jafe-jafe yu mu jural askan wi rawatina bi yoon sage-femme yu Sénégal ci xibaar lu ëpp téeméer ci ñoom amee na nu jàngoro ji moo waral seen ak mbootaay yëglu bu nu sañoon kilifa yi wutal leen ay jumtukaay ci wàllum karange njiit la boobu association sage-femme yu Sénégal soxna Bigué Bambodj ñu teewlu ko Ibrahima Diamé. avant troisième vague bi ñëw ak fukk ak benn saasaam yoo xamee ni ñoom ñoo nangu woon ni ñemee wax ni am nañu feebar bi mm-hmm. waaye ëpp na ko parce que bare na ñoo xamee ni amoon nañ ko bi ñu leen ko waxee dañu wax ni ñoom buggu buggunu ko wax ñu wax ñu tudd leen buggunu bokk ci projet bi donc ce qui fait que ëppoon na loolu waaye lim bi ñu am ñoo xam ne ñoom nangu nañu ni am nañu doomu jàngoro boobu euh, ñu ngi toll ci euh, téeméer ak fukk ak benn lim bi nga xam xamante ni moo xam jege mhm. nañu ñi ko amoon muy contact yi mi ngi ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent malheureusement premier deuxième vague bi on a eu un décès ñàkk nañ ci benn sage-femme bu nga xam ne euh, loru na ci ci biir liggéeyam euh, bii tamit yàggul torop am nañ ci benn sage-femme boo xam ne tamit yëg nañ ni moom tamit loru na ci ci ci ci coronavirus mhm. est-ce que euh, justement compte tenu de cela euh, nguur gi euh, gën na leen taxawu protéger leen wutal leen jumtukaay yoo xamante ne dana wàññi contamination yi ci seen biir. loolu la ñuy ñaan loolu la ñuy ñaan que maternité yi ñu gën leen a doté de matériel de protection na gants yi doy na masque yi doy na gel hydroalcoolique yi doy na eau de javel bi doy. ñu des ak euh, jàngoroy coronavirus ak it euh, li nga xamante ni mooy cooxe gu mu dugal ci service euh, bi ñuy fajee ndaw ñi ci hôpital bu Fann di hôpital Albert Royer ci juróomi gone yu ko am ci wàllu woowee ñeent ya wuy ji sunu borom troisième vague bi nag seetlu gi mooy bàyyiwul tout tànk yi sax terewul ak tout tànk yooyu seen wàllu bopp ñu ca bari ca géejewaay ñu waxtaanal ci reportage bu Oumar Mbow daanaka ñoom xamuñ ca lu bari li wolof naan gune xamul dara. ginnaaw bu ñu defee seeni sieste ba pare xale yi daal di génn ci mbedd mi di fo. ñenn ñi di football. am na sax ci ñoom ñu solul daal. ñeneen ñi moom dawal velo wala leneen moo leen tax a jóg.

Quand je sors, je porte mon masque. Quand je reviens, je lave mes mains avec, avec du Moi aussi, la même chose. Quand, je sors, porte une masque. Pendant, si, si je un peu loin, euh, j'essaie un autre masque pour, pour mettre dans ma poche. Si je fais beaucoup de minutes là-bas, je vais changer de masque. si je reviens à la maison, je lave mes mains. fi mu ne nii nag tembe mbas baa ngi faat ay nit yu bëri rawatina jigéen yu wanaloor ak xale yi même ñi ci gën tuuti xam nañ ko ci banlieue bi. là vous êtes nombreux a pas de distanciation sociale. RFM cité Aline Sow Omar Mbow. jërëjëf Oumar association di organisation yu taxaw ngir àq ak yelleef doomu aadama la ñu bëgg mooy président Tchad bo woon Hissène Habré ñu génnee ko ci kaso bi def ko euh, résidence surveillée la ñu koy bañal mooy ak euh, jàngoro coronavirus ginnaaw bi njaboot gi jokko ak ñoom waral yooyu mbootaay di yëngu ci àq ak yelleef doomu aadama ñu mel ni Africa Jom Center waa RADDHO ak forum du justiciable yëglu jëmee ci kilifa yi ngir kon résidence surveillée ngir Hissène Habré président Babacar Ba bu forum du justiciable lañ ciy teewloog Hadj Ndour Seydou Nourou Ba. fan yee ñu weesu ki nga xam tey ñoom ñooy famille Hissène Habré dañu saisiroon les organisations de défense des droits de lu ci mel ni RADDHO lu ci mel ni Amnesty International lu ci mel ni Ligue sénégalaise des droits de l'homme lu mel ni euh, Africa Jom ak même le comité sénégalais des de l'homme di ci état de santé fragile bi nga xam te moom la Euh, Hissène Habré am état de santé bi mu am mayeetu ko muy nekk dans les liens de la détention hmm. Hissène Habré dafa feebar ba pare sax dafa am moom mag la donc xam nga même yenn pays sax yenn dëkk yi bu dee da nga am yenn age yoo xam ne dafa avancer boo nekkee mag ñu la sax te kaso dañ lay xool naka la ñuy def ba euh, mun la mun la féexal état de santé mayeetu ko mu nekk ci ci kaso bi moo tax ñun ñuy demande à que soit nañ ko defal benn aménagement de la euh, de la peine soit ko à une résidence surveillée hmm. lu ñuy wax benn grâce humanitaire wala benn benn amnistie humanitaire. maanaam ñu bàyyi ko loolu voilà ñu bàyyi ko. Hmm. parce que déjà li amoon solo mooy topp nañ ko condamné nañ ko ñëpp teg nañ seen bët. maintenant comme mag la te fu mu nekk nii téye ko téye ko sa loxo ba mu dee ci kaso bi. Hmm. loolu ñu jàpp que ni gàcce te bépp prisonnier également dafa am droit à ce que. santé am nit ñi di ci bàyyi xel toute mm-hmm. personne a droit à la vie donc condition yëpp boo ko boolee te ñu nekk ci période pandémie mm-hmm. ñu gis que ni première vague bi mu ñëwee maye nañ ko permission mu génn deuxième vague bi ñëwaat troisième vague bi moo gën a doy waar avec variant delta bi mm-hmm. ñu ñu jàpp que ni wax dëgg yàlla santeem dafa menacé wu donc hmm. ñoo ngi demande à ce que l' du Sénégal soit nañ ko defal benn grâce humanitaire wala boog ñu assigné ko à une résidence surveillée mais ñu génne ko ci kaso bi nga xam ne fa nekk hmm. parce que état de santé bi mu am ak âge bi mu am mayetu ko muy nekk ci biir kaso bi ñu wutali université jëb Diop bu Bambey foofee kilifa yi la ñu dogal mooy ak njàngale ma ba fii léegi ñeenti fan ci weeru octobre 2021 ak it tas lépp lu fay amical yu étudiant euh, yu euh, Bambey li ko waral di yëngu gu daara ja nekkee ñàkkum karange Babacar Diouf ciy leeral assemblée universelle Ndiop bu Bambey jël na ndogal bu fi masta am dakkal lépp lu jëm ci coordination amicale coordination des étudiants dakkal njàng ak njàngale mi ak examen yi nga xamante ni ñoom lañ doon def loolu nag du nu mën a tàmbaliwaat budut ci weeru octobre bee ñu jëm ca 4 octobre sax lañ wax autorité université yi ne li tax ñu egg egsi fii dët yi dañoo menacé seen kaaraange wante tamit franchise universitaire yi cordination des étudiants yu Bambey dañ saax-saaxee nu mu leen neexee blocage bi ñuy bloqué administration université Alioune Diop bu Bambey tamit bokk na ci li nga xamante ni moo tax ñu jël décision bi assemblée université Alioune bu Bambey ne étudiants yi le 27 juillet bi danoo perturbé ay examen yoo xam ne ni dafa amoon ca écomige maanaam économie management et ingénierie juridique beneen mbir mi nga xam ne moo tax ñu dàkkal njàng njàngale ci université job bu Bambey nee nañ ñi nga xamante ni ñooy étudiants yi danoo boycotté lépp lu jëm ci examen ci UFR SATIC ak SDDR muy développement durable mais xamante ni moo di université Alioune Diop bu Bambey fii ak li nga xam ne moom la ñuy ñaawlu di ko laaj boobaak léegi kenn defalu leen ko étudiants yi dogaloon ne dañoo def grève illimité maanaam grève boo xam ne nii amul àpp mu mel ni nag décision bi assemblée de l'université Alioune Diop jël du am benn jeexital ci li nga xamante ni moom mooy dundinu étudiants yi nga xam ne ñoo nekk ci Bambey ndaxte fi mu nekk nii ñoom dakkal nañ seen njàng ba ci ñu bëri dem nañ seeni kër. Université Alioune Diop nag bañ ko sanceeg léegi ay jafe-jafe lay dund étudiants yi lu nekk ñu ngi ko doon ñaan wante benn recteur mosta jël dogal bu ni mel dakkal lépp luy jàng ak jàngale ci université bi la. Bombay RFM Babacar Diouf. jërëjëf sëñ Babacar Linguère la nuy wutali association Wayjuri Ndongo yu CEM Albouri Ndiaye ñoo bëggul ñu daal di soppi tur daara ja ngir nouveau lycée ba fa bu nu sañoon daal tur wéy wéy turab buur ba jolof ba woon bañkat ba woon yu Albouri yi Baye Assane Diaw. ki jiite waajuru ndongo yi jàngee ci CEM Linguère commune 2 daa yaakaar ne li ci xew ni sax du dëgg du yoon Abdoul Ba daa jàpp ne tur wi dañ ko war a bàyyi CEM bi. dafa problème bu ñu posé léegi lycée extrême Albouri dama jàppoon ne lycée Albouri kenn waru koo déplacé Albouri Ndiaye fu mu nekkoon boobu indépendance presque amagul kenn waru koo déplacé lycée ba la nekk ci kaw yoonu daara la ñu war a tuddee nouveau lycée ñu wutal ko beneen tur ngir yàlla ñu bàyyi lycée Albouri Ndiaye nekk lycée Albouri c'est-à-dire il faut que defaat seen loxo ci école yi dañoo bàyyee école bi bàyyi bàyyi école bi bàyyi xale yeeg seen bopp ba xamatuñ sax lu xew ci école mi ngi si tekk di naqarlu xaalis bi jéggi dayo bi ñuy laaj waajur yi saa seen doom yi di def examen wala concours. il faut que association nationale régionale ak locale des parents d'élèves xoolaat seen bopp maanaam inscription élèves yi dafa cher léegi xam nga entrant cinq cent la woon léegi ñu def ko mille francs BFM xaw ma xoolal crème candidat bu nekk dix mille francs ngay fay bac xaw ma xaw ma mais c'est trop cher. loolu il faut que association nationale des parents d'élèves xoolaat loolu élève warta yore fonctionnement école élève warta yore fonctionnement examen te soo xoolee frais yi nu ñu leen di organiser presque élèves yi ñooy fay lépp dafa cher wante moom mii mi ngi rafetlu jéego yi CEM Linguère commune 2 tek ba tabax lu tollook juróom-ñetti salle de classe ak benn magasin ci jibaay boppam te kenn fekku ko ci Baye Assane Diaw Linguère rajo Futur Média sport geeg Malal Junior Diagne maa ngi lay ziar Malal. maa ngi lay delloo ziar la Jassane. bisimilah ñu door ax wàllub euh, basketball ak lu jëm si euh, final coupe du Sénégal démb si jigéen ñi AS Ville de Dakar moo daan équipe bu Duc euh, daanaka 68 49 la mujjee. ci stadium Marius Ndiaye Fatoumata Dianko bi ñu def MVP mooy joueuse bi gën a xarañ ci boobule final moom nag nekkoon ay jamono ci Duc te di football di basket léegi ca waa Ville de Dakar wax na ni lii moo tax ñoom ñu am ndam ci kaw waa Duc nañ ko bu baax alhamdulilah ñu joué collectivement yàlla def tey ñu am ndam équipe bi ñoom ñoo kii ñu xam ne que tey j'ai la main ñoom ñëpp ñu joué ak bi la Dakar ah. mais basket kese la woon ci foofu laa nekkoon yàlla def tey jii ma ñëw fii donc ça reste dans le cadre du jeu du yomb moom suñ wax dëgg moom équipe bu baax a baax la wax dëgg fa yàlla donc dañ koy préparé rek bu meneen match ñooyu maximum de ñu après match yi ñu doon a joué